salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi cantakon yi ci ndigalul sëriñ Saliou Thioune ndigal man la sëriñ Xaadim Thioune moom Cheikh Béthio maa ngi ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal it sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Saliou mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal xalif général de Thiantakoune Serigne Saliou maa ngi yëkkati kàddu ci ndigalam sëñ Saliou kat daa jox ndigal taalibe yi ngir ñu amalee gàmmu gi nga xam ne moom lañu war a amal suba fii ci Madinatu Salaam ñu amalee ko fa ndakaaru ca Touba Njurul nee nag mu ngi ci woo taalibe yëpp. ñu fekk ko fa li ko waral nag mooy ginnaaw bi mu defee demande autorisation ba noppi dañu koo xamal ne ko kat mayuñu ko ngir mu mën faa woote ca Madinatu Salaam gàmmu gi ndax jàpp nañ ne bu ñu fa defee gàmmu gi mën naa jur ay coow yoo xam ni aw nit ñoo ko fay indi te moom de du nituk coow moom de jàmm rekk a ko tax a jóg moom day fii nga xam ni mooy madinatu salaam bàyyam a ko sos nekkoon fi ak ñun njaboot gi yépp ñu di fi amal gàmmu gi di fi amal julli iit yi di fi amal 17 avril gi xew-xew diine buy am fii lañ ko daan amal te coow mosu fi am kon nag sëñ bi du nëbbu ci ay bët ñu noppee ko gis ci bët mu mel ni ay coow dafay am mu di ko fekkee nee na loolu de moom dara jaralu ba tax na mi ngi digal taalibe yi ñu fekk si ko tuubaa njurul ca Ndakaaru ñu amale fa gàmmu gi xanaa rek di soññ mbokki taalibe yi ci ñu xam ni woo na ñëpp ci ak yar ak teggin ak taalibe ndax ndigal dey loo gis ci àddina bi ndigal a doole kon woo na ñëpp ci ñu tënku ci ndigal te àndandoog moom foofee ca tubaa Touba njurul gàmmu gi nga xam ni moom lañuy amal suba ngi ñaan taalibe yi ñëpp ñu ne ci dal te noonu mu ko waxee rek ñu àndee ko ak moom di ñaan ci yàlla yonent bi Serigne Touba ñu amal ko ci jàmm ci barkib Serigne Saliou barkib Cheikh Béthio